man la yàlla dogaloon Serigne Lo Ngabou mu ndaw mu dénk ma kàddoom lépp lu jëm ci diine ak lépp lu jëm ci mbirum sëriñ man nag ñetti mbir moo tax sama teewaay fii mooy jëwriñ Abdul Ahad mi nga xamante ni bëkk démb lañ ko arrêté ci sama jëmm la jaare ba mu xam sëriñ bi mi nga xamante ni mi ngi njaare mi tee porte parole bi nga xamante sëriñ bëggoon na ko ci man ci moom la ko sëriñ bi jaarale xaadim jàllale ma ko ma accepté loolu ñëw ci daara ji ñetteel mooy wóolëre laa ci keneen kër ci kër yi suñ Tuubaa yi fa laa joxoon sama bopp kon mi ñetti mbir moo ma teewloo fii nii mbir mi ne ku gis ku nekk xam ni lu rëy am na sëriñ bi ku ko xam ku nekk 2009 laa ko xam 2010 ñu doon ay ndaw bëgg suñ Tuubaa di ko xeeñcu histoire jàngal nu Serigne tubaa na meloon ci colo colokaanam waxinam dëkkinam ak nam bi tarbiya ñu gis ko suñ xel dem ci Serigne tubaa ñu xiif Serigne Touba comme gaynde ni mu xiifee ndawal ñu topp ko nga xam ne Serigne boo doxal parteem këram ñaari part rek ma am mooy wëllëre ak taalibe te boo fa demee mënoo xàmmee kii taalibe ak kii wëllëre nga xam ne ay baykat ay wutkatu ngërma Serigne Touba ñoo fa tasee woon 2009 bi yàgg na indi naa fu nit ku nekk tamit nit ku ne fekk na ma fa waaye lii bi mu amee man sëriñ bi waxal boppam ni ma mbir am na ni ma nattu am na natt boo xam diis na lool te woyofut ma gis vidéo yi ci sama bët dégg audio ci sama nopp ma bàyyi ndax maa jàppoon te Sëriñ tax ngir dara ma demoon ba loo xamante ni sama bët yi am na kersa jàkkaar ak moom muy toog ma tekki sama laxasaay comme ni ko sama naw liy waxee. mbir mii bi mu amee ma dégg ko euh, ci rajo yi bàyyiwuma ci woon xel waaye dafa am benn euh, groupe boo xam dañoo nekk ci bitim réew may faral dafa ñoom ay conférence ci wàllu diine bi njëgee mbir mi ñoo ma ko laaj bi ma ko waxee woo naa sëriñ Gueye mii jotuma ko ma woo beneen taalibe bu ñu woowee Serigne Mbaye Kassé jot ko man ko nañ dem ba ci Serigne bi bi ngeen di wax ma laaj mbir mi nu mu demee bi ma demee maag Serigne bi ñoo toog. ma wax ko li ma dégg ak i information yi mu am mu jël kaamilu alxuraan waa ma ne ma li ngay dégg amut amul ñooñu ay noonu yu jóg lañ ngir yàqal ma tuddum ay tur tur yi ma tudd nag sëriñ mii ci la bokk sëriñ yàgg naa ko xam ëpp na fukki at ak juróom xaadim manqué soog a xam xeex bee tax xam ko sëriñ mii ba may xam sëñ Moodu sëriñ xamagul sëñ Moodu man booba ke am sa laa jóge ak ku ñaan seexu naa Mbàkke ak soxna Bintu mu ne ma nañ dem am na ku nekk nga bu nañ ko ziyaare ji ziyaar dara bi ma demee ziare ko mu laaj ma looy jàng ci ay maraaxib ma wax ab lim pour ko laay bañ mu nu wàlliw nga te man xam man du ma du ma wàlliw ma génnee man leen fii dara néew fi ndax man kii gënu ma xam sama bopp kon du ma du ma wàlliw booba laa xam ni fii dara néew fi benn laax monsieur dem ñaarut beneen bi sëriñ mii laa àndaloon mu doon yóbbu ci raay libaan ma ko duggee ak Moustapha Diop bi mu amee ma toog sëñ bi laaj ko mu ne ma ay noon la yoo xam ne bëgg a yàqal daal damay wax ab liggéeyam ci daara ñaata donga daara la yor li mu liggéey lépp man di ko ah bokk kon comme que dañu laa bëgg a man danaa jóg défendre la ba kenn du la yàqal comme que liggéey sëñ Tuubaa ay noon jóg ngir yàqal la loola man du ma ko seetaan ndax man sëñ bee ma ñor ci la ma wax ni ma nag am am na kilifa yu mu woo sama kanam ni ma am naa ñaari kilifa ci wàllu yoon ñoo ne sama ginnaaw li mu bëgg danañ ma ko defal jàpp xale yi altine altine googee bu accès jàpp nañ xale yi taalibe bu ma fi yóbboon di mbay kese moom ma oowaat ni ma sëñ Moustapha sëñ bi loolu la wax lu dëgg vidéo yi am na audio yi am na ci laa jokkoo ak xaadim xaalim ñëw sama kër gisal ma ma jox ma gis vidéo yi vidéo yi vidéo yi saay-saay la buñ maslaa vidéo yi saay-saay la def ak lu bat 700 audio 700 yaram mu neen saxu na ay de la sequl dara mais am na ñeneen ñu seqal am na ñeneen ñu seqal ak njaaloo ak ñoom Aïda la mujj di seqal ki def vidéo audio yi la seqatoo ñoom mais lu jiitu Aïda am na ñoom seqal yàq dafa ay ëmb dégg naa ko ci ay ay talibé ñu ko ko weddiwu ko yooy dañ koy wax dafa na xale yi ci Serigne Touba ca moom ab saay-saay la bu doon jëfandikoo ci tudd tudd sëriñ bi di jëfandikoo ay saay-saay bakaaram bàkkaaram ñoruñu loolu digganteem ak suñu borom la mais sëñ bi muy tuddoo àgg na ci sëriñ boo tudd mu waxtaanu bon gëm loo leen ni mooy sëriñ Tuubaa ci ay fenn neen ñun loolu moo ñu tax a jóg mais jëmmam ja ak bàkkaaram suñu yoon nekku ci moo xam bi ma xamee loolu laa jóg dem ci Cheikh Mouhamadoul Bachir wax ko ko wax ko sëñ Amsa woo sëñ Maamor bu sëñ Muntaxa ay kilifa ndax ñooñu yoor wi yoon la ñor ñu wax ma te lañ ma cay wax ma dox ca waa kër gaa ngi nii damaa ñu fekk mu dem ma ànd ak ñoom dem brigade wax ak commandant ba lay wax dem ci sëñ bi wax ko woo commandant ba ñu bàyyi leen mu ni ay image am la ñu partagé. ñu nii moo Cheikh Amadou Bachir lañ jógee ba ma demee dañ ma lañ fa lañ fa lépp waxal ma ko neexul yoon wi toon na yoon wi parce que dafa am ñu taxaw ñoo xam ne ay noonu yoon wi lañ am na sox ñu naan ay da jàllu lam def li sëñ bi dafa gën piir pire sëñ bi tëddee jabari jàmbur yi ak mballu la fa nekke nee damay fatu fatu day mballu yooyu moo tax gars yi dañu am kersa waxu ko parce que moo nekkoon seen seen yaakaar du dara léegi nag ñun ñun luy ñor li li ñuy combat du jëmmi bàkkaaram suñu nëw ci mais jëmmi Serigne Touba jëm ni moom la di ko wooto woo nit ku baax koo tudd mu def ci moom lu ñaaw tudd na ba tudd Cheikh Amadou Cheikh Abdou Cheikh Abdourahmane bu Daaru Muxti nee na nu wuti ab cër ci yàlla sëñ Muntaxa mi sëñ Touba nga di ko teg ay baat ku xasida yi wax na jël lu mat 28 fulkul masoon ab taalibeem nee na nga fa ay xasida ña fa junniy noo daari ña fa mu fa doon mooy yàlla lii mooy dëkk ji ñii dañu am kees wax la li fi nekk alxuraan ji lii mooy li fi nekk man nag dara ñuruma Serigne Touba bi mu tuddoo na ko ba xam nga sëriñ si ñoom la ñuy dox euh, lépp loo xamante ne safaan la ci yoon ñoom danañ ko lijjanti nañ ciy lijjantee duñ ko wax ci ay télé waaye ñoom nañ ciy lijjantee ba wooteem boobee da nga dakk te maa la wax mbubu sëñ bi mi sëñ bi mu mi mbuboo da nga dakk loolu nag kilifa nag la muy def doo toog ci télé ak rajo di ko weer waaye li wérta wër moom ñoom ña nga ca ñun taalibe yi nag taalibe yi ba gisoo ñu am naqar benn xaalim tooñu ko ca ma nga ñu tey ay ci ay tappale kese parce que moom moo ma tuddal ay kilifa yu nekk ci wàllu yoon ni ma lu ma leen sant ñu def ko moo ma ko wax bi ma ko ay taalibe ñu ngi toog kon mel na ni jàpp gi leen jàpp du yoon léegi nag ñu bëgg reelar mbooleem taalibe yi Sëriñ Tuubaa yi ak mbooleem jullit ñi xam ne ci aw fenn wu nëbb la nekkoon da nax nit ñi ci sëriñ bi te nit ñi sëriñ bi rek lañ ñor moom mu nekk ci boppam am na ay taalibe yi def ay prêt ay banque douze millions jox ko ko ñu jox ay millions jàkk yooyu tabaxu ko taalibe yoo ko tabax taalibe yi dërëmam demu ca dërëmu taalibe yi la taalibe yi mu nax sëñ Tuubaa ñoo ko fa def léegi nag soxna Ayda moom nag ay mbokkam dañoo bëgg def plainte danañ ko dugal lundi incha allah muy ñaareel ba wax nañ taalibe yi ñoom ñëpp dañ alal dañ ko jox alal yi sëñ la parce que jëmmi sëñ Tuubaa dox ñu wax ko waxtaan dama ci kilifa goo ko jegee moom kilifa goo ko jegee sëñ mutloo nag du mut du sëñ mutloo ngaa bu am sabinatu amande mutloo ndiiréen la mutloo mu ndaw muy nur nur lu sëñ la loolu moom ñun man bu lekkoon sama alal ma def ko mais ñu lekk si alal ñoom ñoom ñooy xool buñ buñ amee nag buñ jaafusee ñoo xam waaye daal la Sénégal gi xam ni ay tappale la nekk te bar na yoon bar na bar na ñu mel ne moom nag mais ñoom ñëpp la ñuy def mab borom Tuubaa du ku ñuy foye Sëriñ Tuubaa du ku ñuy foye sëñ Amsadu moom Cheikh Abdoulaye nee na ma tabaxu fenn suñu borom day bàyyi ba nga koy dëkkee